Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige. Nous revoilà en ce jour dimanche 22 euh, janvier 2022. Euh, Nous sommes ici donc euh, près de la Lonance pour assister au départ de cette grande course prix chef de l'État édition 2022. Le départ va être pris d'un moment à l'autre ici à, à L'arrivée euh, sera à Dakar. Les coureurs vont faire un trajet important. En tout cas, les athlètes vont se rivaliser d'ardeur pour essayer donc de se surclasser afin d'obtenir euh, leur euh, récompense. cette année donc, le thème soulevé, c'est halte aux accidents de la route. Votre télévision régionale, comme à l'accoutumée, fidèle à sa tradition, accompagne la Fédération euh, sénégalaise euh, de cyclisme kon mbokk ñu wax leen rek euh, présentement ñu ngi fi ci Thiès ci départu course bi nga xamné moy drapeau du chef de l'État édition 2023 ñu fas gis ngeen président Macky Sall a ngi ñu départ rek Thiès dal di def arrivé à Dakar coureur yi dinañ delluwaat ci Limbi, tout au long du trajet dinañ and ak aussi ñu dal di commenter avec Khalifa Fall les temps forts de cette belle journée en tout cas le plan xam euh, course bi en exclusivité ci une télévision régionale euh, prestige C'est dimanche Nous janvier 2022 euh, présentement coureur derrière nous Nous fait d'un moment à l'autre nous effectuer le départ départ est dinañ ko en tout cas Khalifa Fall ak man dinañ faire vivre les temps forts de cette belle journée de course en ce jour, je l'ai dit tantôt, dimanche 22 janvier 2023. présentement nous ngi ci l'autoroute euh, Aloub depuis euh, bu déparé euh, Thiès départ symbolique Nous nga eu ne moom buntu Lonance, bi nekk ci Randoulène ñu gare routière bu Thiès ñu daal di def départ bu am présentement Nous ngi eu ci Aloub juste d'un moment à l'autre dinañ egg Pout ngeen di apercevoir de loin ñi nga xam ne cyclistes en tout cas, ce matin, dimanche, ils sont très déterminés à se euh, faire euh, surclasser parce que dès le départ, euh, ils ont envie de remporter le prix chef de l'État édition 2023 wax 5. ko avons cette année ci dañoo def thème halte aux accidents de la route mu nekk thème am solo Khalifa Fall nous allons di li nga xamné mom nous euh thème bi aussi li nga xamné euh, mom mo ci athlètes yi ni ñu engagé wo ak ni ñu détermination wouté lool ak li nga xamné mo euh, championnat du Sénégal cyclisme 2023 22 bi jeex ni présentement du chef de l'État mom lañuy daw départ bi waxna ko sank ñu ko tout au long de ce trajet vous aurez les moments forts avec votre télévision régionale Prestige en partenariat avec la Fédération sénégalaise de cyclisme. Le départ, c'est à Thiès, l'arrivée sera à Dakar. En tout cas, vous apercevez de loin les concurrents. Ils sont en train de se rivaliser d'ardeur. Et le point final, ce sera la capitale sénégalaise. Le trajet sera très long, mais il faudra de l'endurance et de la persévérance pour pouvoir gagner ce prix du chef de l'État. Allez, voilà, euh, ça Vous avez vu que euh, nous sommes actuellement du, Pout. Bon, donc euh, toujours, est-il que le peloton est toujours devant, un peu loin. Il toujours, hein, le peloton est toujours là. Il y a deux coureurs qui, sont, qui ont eu des pannes mécanique you ont mais ne pense pas que pourront rejoindre le peloton échappé bientôt euh, vous avez vu les gendarmes qui sont en train de passer devant pour la situation devant parce qu'effectivement, il y a des motos donc ils peuvent euh, créer des problèmes parce que donc pour la sécurité ne serait-ce euh, ils sont obligés de faire des ñu par contre euh, il y a beaucoup de beaucoup de surtout les organisateurs tous les organisateurs que j'aime beaucoup parce que vraiment c'est des gens non seulement les c'est du bénévolat mais ils sont là depuis ce matin de très bonne heure petit ci propre moto une propre essence c'est vraiment le sénégalais dans le ngalaama parce que lui, vraiment il faut être sénégalais pour le faire.

mais heureusement heureusement que sénégalais il ko là dafa Diamniadio kooku sénégalais yëpp xam nañ ko ñu ngi ci Diamniadio waaw parce que on commence à aller à y en a qui commence euh, qui commence à lâcher hein. am na ñu commencé di bàyyi par ben ben am na am na ñu commencé di bàyyi par ben benn waaye parce que ils sont jeunes les coureurs ils sont jeunes mais tout ça da ngay xam ne rek buñu ñu leen joxee les moyens rek c'est sûr que ne euh, dinañ dinañ dinañ ils vont développer.

mu am pan mu taxaw te xam naa ne balaa mu koy réparé yooyu dama ragal gars yi jox benn distance boo xam ni est-ce que ce sera facile pour mu dabaat leen mais comme gars yi ñoom dañuy accéléré ba nga defoon dem nañu ñu bi parce que c'est parce que xëy na peut-être c'est la loi de la course ah. course moom xëy na peut-être que noonu lañ koy doxalee parce que da ngay daw accéléré bàyyi waat di dem di bàyyi di dem di bàyyi dëgg-dëgg da ngay lâché diggante bi d'ailleurs loolu moo daloon suñu waa ji keroog parce que vraiment il a bien parti très bien parti mais gis naa finalement fu mu mujjee dem nañu damay daa xam ne man dafa naan sans fait bi carte gi jeex na ndekete yow waa ji ndekete gars yi moom dafa mel ne sa dafa xamoon loolu quoi mais la ce qui est sûr c'est mooy la prochaine fois loolu dootu ko dalaat parce que loolu la ñuy loolu mooy expérience rek ci loolu ngay demee ba xam exactement course naka nga koy gérer noonu ngay demee ba xam exactement course naka nga koy non seulement naka nga koy gérer mais naka nga koy entamer ak naka nga koy terminer parce que dafa am dafa am dafa am entame ak ak ak ak terminaison waaw parce que ma demandé on m'a dit course dafa am noo koy entamé de ak noo koy terminé doo ñëw rek di përë di dem loolu nag moo commencé di feeñ léegi nag booy bi xam na ko te c'est sûr que bu waroon kat dina ko defaat waaw kii rek c'est une panne panne mu am bon donc souvent day teggi bu roue boobu dugal beneen roue rek a di départ xam nga ama xëy na sax peut-être que lépp mu ñu léegi mu nekk léegi nag gis nga gis nga moto bi di dem nii moto bi gis nga ñaata groupe vélo ñoo nekk ci ci loxoom parce que donc ku ci am problème rek da lay da lay soxla benn mais bu c' est des professionnels nag gis nga bu ñuy monter roue yi c' est pour ay ay ay secondes la tak tak ñu monter roue bi dafay gaaw ba nga ne non c' pas possible da naan sax mais lii nu mu demee nii monter na ko da ngay jege gis ko mu rombat la fekk dégg na roue ba ba joxe jël beneen à on est à On est à Bargny. Le numéro 41, Le numéro 41, il avait des problèmes. Moi, mon problème ah ñu ci parti bi nga xamné quand même tali bi xaw na neex quand même et ko gis nga automatiquement da nga koy sentir ci coureur yi da nga koy sentir ci coureur yi. voilà merci donc à vous doyé Khalifa Fall euh, présentement liñu dess des euh, ñu egg Dakar bari wul wax nga ko sank ñu ngi woon euh, Rufisque euh, concurrent yi depuis buñu défé defee bloc dès le départ à Thiès. Euh, gis nañ bloc bobu mo continuer jusqu'à présent mais néanmoins il y a des concurrents qui xamné euh, jot nañu des ginaaw mais distance bi pas lolu euh, jàpp naa sax arrivé bi suñ ci égué du teg ay du 10 à 15 minutes sax du ko mat ñi nga xamné ñoy autres concurrents yi nga xamné peloton bi daf leena a derrière ñu daal di en tout cas la course de ce dimanche ah, vraiment nek na course bu am solo course professionnelle ndax euh, côté encadrement commissaire course bi ñom euh, def nañ ci euh, concurrent yi kenn len ah, lu na nañ li ci des ñu egg en tout cas partout où l'on où l'on passe dañuy gis euh, nit ñi dañuy euh, ci li nga xamné mom moy euh, course bi euh, ma prix du chef de l'État son excellence Macky Sall mom la ñuy daw tey am na thème bu am solo moy halte aux accidents de la route de la circulation wala aussi mu nek nak thème bu am solo ndax jamono yi gis nañ né ñu ngi rencontrer recrudescence des accidents de la route et moment choisi par la Fédération sénégalaise de cyclisme pour donc aborder ce thème histoire de rappeler aux Sénégalais de se conformer aux 22 mesures édictées par le gouvernement du Sénégal pour éradiquer, pour éradiquer définitivement euh, les accidents de la circulation. Et cela peut être possible. Et voilà, présentement, nous euh, ngi en euh, dans Dakar dara ni ma leen ko waxee ba léegi euh, peloton bi dafa en bloc depuis le départ à Thiès euh, mu course ne bu am comme la li ko Khalifa waxee prestige votre télévision régionale fidèle à sa tradition ne sait jamais d'innover et ne sait jamais donc de frapper au bon moment notre sacerdoce vous servir grâce aux informations euh, qu'on est en train de véhiculer. C'est ça notre sacerdoce, je l'ai dit sans tantôt. En tout cas, la course de ce dimanche s'est euh, bien démarrée. Et voilà, sous peu de temps, quelques kilomètres, nous serons donc euh, à Dakar et le vainqueur sera connu pour le prix du chef de l'État Macky Sall, l'édition 2020. jubal yoonu Ngor gën nañu yoof ñëw aéroport jaar casino jaar virage jaar casino war wuti Ngor faaru Ngor baa ngi noonu yéen a koy yéen a ko seen seen bopp sa descente bi gaa yi gaa yi ngay wàcc ci descente bi le peloton est là ñu ngi wàcc descente bi peloton baa ngi wàcc sant bi c'est quelques retardateurs qui sont là. Voilà, parce que... présentement nous ngi xaar euh, déjà euh, ligne d'arrivée bi euh, déjà vous entendez en fond sonore les sirènes de la gendarmerie Nous avons mené escorte depuis euh, le départ à Thiès, euh, depuis le départ à Thiès jusqu'ici à Dakar, euh, depuis le départ à Thiès jusqu'à Dakar. En tout cas, on est à la dernière ligne droite. D'un moment à l'autre, les acteurs, les coureurs vont franchir la ligne d'arrivée. Les gendarmes sont là. Allez, vous voyez les motards. Allez, d'un moment à l'autre, a assisté assister première, première arrivée. Première arrivée, euh, ñoo euh, gagné li euh, prix du chef de l'État voilà vous les apercevez ils sont là voilà le vainqueur de 3 voilà et voilà vous voyez vous voyez là ils sont en train donc d'arriver ñu ngi après des kilomètres d'endurance les coureurs ont franchi la ligne d'arrivée donc en ce jour dimanche 22 janvier 2023 le prix du chef de l'État édition 2023 départ Thiès depuis ce matin arrivé à Dakar euh, arrivé boo arrivé triomphale de la part des acteurs Gisgelen, nous leen euh, nu nous excès euh, mu lu en tout cas vous voyez en image hein, ñi nga qui ont assisté ñoo ñew assister li nga xamné mom moy course bi xamna d'un moment le nom du vainqueur du prix du chef de l'État aussi dina am ay réactions ah, ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, bokk ci ñoom ñoo bokk ci course bi vainqueur bi dinañ am réaction am aussi dinañ am aussi euh, réaction ki nga xam ne euh, moom mooy président fédération sénégalaise de cyclisme en tout cas depuis le début depuis le départ à Thiès on a assisté à une belle course hein, le peloton gis nga ñu ngi noonu di am na ba léegi am na ñu des aussi on a remarqué que euh, euh, course bi bu mu euh, bloc la def de Thiès à Dakar ñu gis né aussi en cours de route amna ñi nga xamné ne nañ leen ginaaw mais bëriwuñu won lool mais ñu gis ne aussi n'empêche ñom it def nañu seen liggéey ci anam nu mu waré ba dal la majeure partie dal dinañu arrivé à bon port en tout cas la course était impeccable on a assisté je l'ai dit tantôt à une belle course ce dimanche voilà on s'approche un tout petit peu cher. Euh, en tout cas Prestige, comme d'habitude, hein, ne cesse jamais de vous accompagner euh, au moment de ces, au moment de ces rendez-vous. Euh, gis nañ ne nag gars yi yegsi nañu peut-être chef de l'État c'est fort possible mu daal Daldi, génni daal di joxe li nga xam ne mooy mbir mi gis ngeen oto yi def nañu endurance Daldi Nanyu, nañu Nanyu, nañu def endurance def nañu aussi montré où nañu ne ils sont déterminés aussi, euh, aussi, euh, aussi, ils avaient la rage de vaincre. La majeure partie donc ont confirmé, en tout cas le premier, le second, Et ainsi de suite. Dinanko Dal de dévoiler d'un moment à l'autre. Euh, Douane Khalifa Fall, on était ensemble depuis ce matin. On a pris le départ à Thiès, on vient juste d'arriver à Dakar les les et finalement on est arrivé à Dakar. arrivé à Dakar. Mais la, la plus bonne nouvelle, uh-huh. c'est que c'est Thiès encore qui remporte. Comme la fois comme, la comme, la finale le, du le Grand Prix du chef de l'État. Uh-huh. Le Thiessois est champion du Sénégal. Tout à fait. Un autre a pris la coupe, du chef de l'État. Donc euh, Thiès, mon gère et mm euh, on est ci beaucoup cyclisme. Euh, cyclisme au niveau national au niveau national Thiès tout à fait bon loolu moom lu lu ñu kon la lu aussi moo est ci bi. waaw comme d'habitude. on a accompagné ñoo accompagné ñun ku accompagné nga jël tout à fait. tout à fait ñoo accompagné fédération sénégalaise. de cyclisme euh, ci finale championnat du Sénégal ñu accompagné waat leen ci li nga prix du chef de l'État. en tout cas prestige mu ngi te liggéey bu rafet hein, moo tax ñoom. Euh, ñu daal di ñu choisir ñu accompagner waat leen loolu am solo la. mais nag trajet bi euh, guddoon na Thiès de Thiès à Dakar jaar nañu ay dëkk yu bëri. aussi à gudd na mais rax na. tout rax na maanaam maanaam bu ñu jaaroon autoroute à péage directement. waaw mënul gën a neex. mais xam nga yooyu aussi charme bi. mooy jaar ci dëkk yëpp. Mm-hmm. de Thiès mm-hmm. après Thiès Pout après Pout Sébikotane après Sébikotane Bargny ñi nga ñëw Thiaroye nga ñëw caaro ñëw Mbaaw ñëw Mbaaw ñëw Patte d'Oie jóge Patte d'Oie daal di jubali Yoff jëgë yoof daal di jaar Corniche aéroport bu njëkk ba jaar jaar euh, Almadi jaar Ngor genn Corniche ñëw mais vraiment c'est extraordinaire fofu yépp on a fait tout ce tour là pour être pour être devant Sorano théâtre dañu Sorano ñëpp xam nañ ko mi ni bon donc voilà donc devant théâtre dañu Sorano uh-huh. fofu le mode mode mode mode arrivé bi et que effectivement tout Dakar est là fatirne nag day toj précis tout à fait doyen Khalifa merci beaucoup Euh, oui il a pris l'arrivée waaw sama teewaay mooy euh, maanaam dañu de jël comme invité d'honneur organisateur moom jël compte honneur teewaay bi aussi nekk na ma kontante bu rëy ma que euh, course arrivé course boo xam ne tabaarkalla macha allah te kontaan kontaan naa trop ci loolu. ñu gis ne cyclisme accompagné nañ leen depuis départ bi Thiès jusqu'à Dakar ñu gis ne les jeunes sont engagés bëgg nañu euh, li nga xamné mom moy sport bi euh ñooñu war nañ leen mëna jappalé pour ñu gëna a euh, euh, gis seen bop ci cyclisme. oui lolu lu reey le war nañ si contane ñun ñëpp parce que comme lu ñu doon waxé rek il faut avoir un esprit sain dans un corps sain defena sport dafa bokk lo xamné rew réew buy aspiré ci développement dafa war loo xam ne kooku da nga si war taxaw té chance bu reey le Sénégal dafa nek rew bu xamné xalé yi duñu bëgg sport cyclisme dafa xam ne xëy na comme nu souhaité diko def té xalé yi bëgg nañu ko je pense que ñun suñu taxway moy jappalé leen def de sorte que ci cyclisme bi mu gëna a briller comme ni koy défé té contane na ci organisation bi parce que de fekkuma def ma circuit bi mais ma ngi joko ak ñom étape bu ñu nekk yépp ñu may rendre compte lool lu rëy la moy autorité yi lañu ñaax ñu gëna jappalé ministre du sport surtout.

de faire l'effort physique c'est compétition par rapport à soi-même donc euh, nous encourager les vraiment pour nous surtout nous gens fi des encourager Nous encore féliciter les gens qui participer aussi c'est très important ñu encourager leen une participation aussi nous à cyclisme day permettre ñi nga ak de découvrir hein

richesse ou vraiment d'une façon générale euh, dëkk bi lépp lu mu am Sicile moom mun wone loolu parce que yeneen compétition da nga koy def ci benn place nga koy def mais Sicile bokk na loo xam ne vraiment dafay wone et kii yooyu yëpp moo tax nag mooy ñu ñaax ñëpp ñoo xam ne euh, comme ñu mel ni ministre du tourisme comme ñu xam ne ministre du sport ñu gën a jàppale jàppale cyclisme te lu am importance la. Euh, asalaamaaleykum ñëpp ñi nga xam ne que ñoo ñuy seetaan donc man maay Marie Victoire Fall. Nek, chef service communication à la LONAS, de représenter le directeur général de la LONAS, monsieur Ladjoub, ainsi que la directrice du marketing de la communication madame Nambao euh, Diallo à ak euh, euh, donc personnel des forces force de vente bi. donc accompagne la fédération cyclisme c'est normal parce que comme nous avons les bénéfices à la nation donc lolo day répondre un slogan ba paré ñëpp xamné que l'ONAS day euh, accompagner sport Lolo yagna, yagna, c'est depuis euh, des décennies et aujourd'hui euh, que la fédération de cyclisme ñëw sur l'ONAS que ñun ñu tontu pour man dafa que tout simplement c'est quelque chose qui est vraiment très noble et qui est vraiment très évident parce que vous savez que le, cyclisme, c'est un sport qui euh, aujourd'hui est un sport très très très complet donc le euh, loolu ça ci profiter nous ñaax ñëpp commencer ben ci man que mu sport vous pratiquer ça pour euh, notre épanouissement notre santé mais également aussi tamit pour suñu njëriñ ñun Wow, mais euh, Lolo, euh, comme on dit ça vient à son heure hein, parce que nous xam nañ ne que euh, moment nous ñu donc des morts à cause des accidents de la de la route donc euh, ci tam ci profito de ñi nga que ci mbokk que également di euh, toutes les euh, toutes les familles et puis aussi di wax cyclisme je pense que tey su fekké que dañ koy def ay normes répondre

de faire attention et puis également de répondre aux règles et aux normes, ça c'est important. Euh, nous tey ci euh, Grand Prix du chef de l'État nous nga xam la euh, dernière compétition de l'année après nous dawalkatu vélo yi dañuy ciy jóge nag daal di jël vacances ah xam nga loo gis rek les vacances vacances c'est pour dem faire ah choses. li nga manqué woon ci saison bi nga mottali pour que saison bii di ñëw boo bokkul woon ci ñi ndam ah, ndam aussi. On naka la ñuy maintenir pour que ndam li mëna a des ci seen loxo alors lolu moo Alors, je indi suñu teewaay fi grand prix du chef de l'État à avons un lu am lu solo parce que ni avons ko déparé Thiès Nous euh, fi nga xamné fofu le la suñu ministre de tutelle deuk hein. alors nous sommes arrivés à Dakar fi ci boulevard de la République en face euh, du palais j'espère que le président il nous a déjà laissé un coup d'œil alors Lolo, c'est symbolique chez nous. Et on a choisi vraiment des sponsors comme euh, la LONAS, comme euh, elle l'a dit tout à l'heure, euh, au service du peuple, hein, les bénéfices, de, bénéfices à la nation. Alors, choisir aussi BH, BHS, comment ville durable, hein, mobilité durable, le cyclisme, Hein, euh, alors doon lu ci am solo li tax mu am ci solo ni ko soxna si waxee léegi vélo dafa nekk discipline bo xam ne dafa complet wax ko fi la dernière fois mais naa dina soigner 25 pathologies xam naa sama directeur technique duma duma duma duma baye ma hein ma ma ah ma ma wax leneen mu am solo lol nak alors ñu choisir ci Lonase mu teew fi ak teewaay bu rafet nak aussi euh, parce que départ bi ñi ngi ko devant euh, les services de la LONAS, de Thiès direction générale bi arrivé boulevard de la République de la République alors mu lu am solo li tax ma wax ko ku ci fan yi ñu am nañu métit ah, accident té vélo ku koy def dafa discipline alors vélo ku koy def dafa laaj discipline dafa laaj aussi de sorte que, alors, euh, l'ONAS am loolu ci li nga xam ne mooy euh, vraiment activité yi muy def ndax ku ne l'ONAS xam ne course hippique ah ma tooñ sama sama président fédération bu course épique alors euh, ñoom discipline la ñu la ñu la alors discipline boobu la ñu bëgg suñu mbokk chauffeurs yi suñu mbokk ñi nga xam ne ñoom nañu bokkal tali bi ñu moytu te aussi ñu doli discipline ci ci ci mbir mi metti nañu lool nak ah di ñaanal ñi nga xamné ne nañu euh ñi nga xamné ñom ñoom ñoo ci amone ay loraange suñu borom yëkëti leen ba fëgg seen bopp ñuy remercier bu baax nak euh LONASE vraiment ci taxaway bi ñu bi ñu taxaw waaw circuit bi buñ ko naté euh, je pense ça fait 82 km dañ ko def mais nak on a pris des risques parce que ku jógee Thiès di dawal vélo nga né yaangi course nga romb Diamniadio Rombo Rufisque rombo croisement Cambérène hein, de alors Lolo, c'était un défi donc c'était pour imposer aux usagers nous nga xam ne ñoo imposer les, def discipline on l'a réussi on s'est dit il n'y a pas eu de voilà comme ni ko soxna si waxee vélo yi mbëkkante nous, mais on est arrivé euh, vraiment à bon port et comme on a l'habitude de dire tout entier quoi hein waaw vainqueur bi nak mom dafa dafa ngoy ci ci trophée bi mom Thiès la deuk mi ngi nek euh, vélo vélo vélo baaw baaw baaw bopp club alors donc ñom wax dëgg yàlla tay mom dañu woné sen euh, sen sen passe passe ci ci trophée d'ailleurs sax banderole bi sax dañ ko muju nangu ci ñun parce que nee ñom liñu bëgg moy gagner compétition bi gagner nañ ko nangu nañu banderole bi yóbbu nañ ko Thiès. compétition bo xamné limu am ñi koy def Afrique bëriwul mais ñun ñu am ci ku xarañ koo xam champion du monde militaire handbike alors moi, c'était un légionnaire euh, yàlla dogal mu am ci accident mais Tay, ñi nga xam ne ñoo koy def sax vélo yi mu ci yore woon ñoom la ko jox mais ñu bëgg ngeen am ci nag beneen euh, surprise Moi, le général de la la force euh, armée de de la France nous ko jëndal bi mu mujjee yore nous une d'une valeur qui tourne autour de 10 millions Nous avons ñu bëgg ko ñaax ñu vraiment c'est une discipline qui coûte excessivement cher Si nous leen ci c'est parce que avons une valeur y compris la BHS parce que qui dit BHS dit ah, que vraiment euh, avons nañu kër alors lolo, dafa doon nous nous lu donc euh, te am nañ passe-passe nous avons je pense un effectif de 8 coureurs Yo, xamné ñi le championnat d'Afrique bi ñu wara def mois de février Sénégal gëjoon na fa trop ñu bëgg nak bu ñu démé ñu won leen suñu voilà très bien euh, Écoutez, hein, vous savez xam nga Sénégal on nous a toujours jugé des personnes très intelligentes raison de plus donc notre discipline franchement doit être bien soignée et je pense qu'ils sont en cours moi je l'exige dans mon équipe et aujourd'hui on veut développer et hausser cette discipline au niveau de toutes les catégories, commençant par, les, par, euh, la, petite catégorie, hein, euh, minime, hein, euh, cadet, junior, senior, paracycliste, voilà, féminin surtout. Hein. Vous voyez, les filles ont bien couru aujourd'hui et ils ont démontré quand même leur expérience par rapport à tout. Voilà, les sponsors, hein, bon, je, n'ose pas commencer par un autre sponsor à part la LONAS. D'abord la LONAS, la BHS, AMES, euh, la télévision euh, de Chess, Prestige Télé, hein, et franchement les supporters, et pourquoi pas les riverains qui nous ont bien accueillis à côté. Et je pense que peut-être ils vont plus tard nous demander de recommencer encore.